voilà dañuy daal di dalal Sali Thiatou 2A TV su ko defee mu daal ñu jukkil xibaa yi nga xamante ni moo daal di jot a ruuse ci bëccëg bi waaye bala may ñëw ci yow Ro nee na dañ may dañ may takkal bracelet électronique comme ça ñu may man di localiser Ro yow yow yow lan nga may doyee boo may localiser tamit lan Ro génne ci li nga nekk. waaw baax na ah man man bàyyi ma rek man bàyyi ma rek ma libre moo gën <laughs> Sali nuy naa la. maa ngi lay euh, fay maam Diarra. Hmm, di nuyu euh, di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan. Hmm. mi nga xam ne rek. ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne moom mooy panel bi ñoom Ro. ku ci mhm. mel ni ñoom Gilbert ñu ngi leen di euh, nuyu ñoom ñëpp di leen euh, ziar. <laughs> gisaguma ko xam naa tey. <laughs> xam naa day nalaw xam naa sûrement mhm. euh, lan moo fi gën a jot lan moo fi jot a ruusee ci bëccëgu tey ji les Sali. voilà gën a li ruus ci li nga xam ne rek moom mooy xibaar yi nekk Idrissa Seck bi nga xam ne rek daal nar naa janoo at ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi suba ci vendredi bi fële ca diwaanu. diwaanu Thiès à partir de 16h gannaaw nag ba nga xam ne rek moom nag woote woon na ci jan pour janoo at taskatu xibaar yi le 27 mars bi ñu génn waaye nag dafa daf ko daal di reporté ndax nee na dafa bëgg jàmm ci réew mi waaye nag daal dina wootewaat rek ngir janoo at taskatu xibaar bi waaye bi yoon nag fële ca Thiès la ko daal di woote ngir rek képp kuy taskatu xibaar daal di dem foofu rek ngir assister ci conférence de presse bi nga xam ne rek daal dina ko waaye nag ñu ngi posé wu question rek lan la fa nar a waxee ci at ci ban euh, domaine wala ci ban sujet la nar a aborder Mame Diarra. effectivement Idrissa Seck comme ni ma ko waxee woon sànq moom mi la nekk président du conseil économique social et environnemental. Mhm. ginnaaw ba ñu ko tabbee loolee nag mu bokk ci nguuru euh, président Macky Sall waaye nag ñu xam na ni position bu mu am ci lu ñeel troisième mandat saa su nekk mhm. dafay wax que ni troisième mandat daal euh, bokkul warut nit waru ko daal di am ca naka noonu gis nañ tamit nag lu ñeel présidentielle 2024 yi. mi ngi koy wumbandaat eh, naam nit ñi ah, jàpp nañu Idrissa li muy Idrissa Seck li muy def nii yëpp dafa daal di rek bëgg a bokk ci présidentielle 2024 en tout cas lu mu ci mënti doon ni ko suba dinañ daal di xam mhm. yan tànk la daal di taxawee ci présidentielle 2024 yi ñu daal di rek eh, dët voilà ñu wax euh, ci leneen rek euh, lu ñeel wàllum euh, série d'accident yi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal gannaaw ba nga xam ne nag kii di ministre des transports di Mansour Faye génnee ay mesures ngir rek interdire lépp loo xam ne rek mën na indi gàllankoor ci wàllum transport bi waaye depuis loolu rek ñu ngi nemmeeku fii ci Sénégal à chaque fois saa yu ñu xëyee rek ñu ngi nemmeeku ay série d'accident yoo xam ne rek ci circulation bi lay doon ñu ki nga xam ne rek mooy mardi bi ñu génn ki euh, fële ca euh, Louga euh, ñu nemmeeku fa benn accident bu grave boo xam ne causé na lu yemook cinq nit yoo xam ne dañoo naa daal di ñàkk seen bakkan at 37 yoo xam ne rek dañoo daal di blessé loolu rek bokk ci li nga xam ne moom mooy série d'accident yi nga xam ne rek à chaque fois ñu ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal ni ki démb nag am na benn accident boo xam ne fële ci aslem la amee benn moto cak-cak la benn benn bus tata daal di euh, mbëkk ba ki nga xam ne moom la moto bi moom la yeboon ci ginnaaw daal di ñàkk kanam ci saa simaam maam jaara waaw mu mel ni Sénégal bés bés rek la xam accident bi nga xamante ni amoon na euh, ca nit yu bari ñàkkoon ci seen bakkan. plus de mhm. trente personnes six kilos oh, six voilà moment yooyu mu amee woon gis nañ ñëpp di doon àddu du ci wax ñu jëloon ay matukaay yi nga xamante ni jàppoon nañu euh, mhm. peut-être accident mbiru yàlla la waaye suñu ko daal di rek defee mën na wàññi lu ñu mel mais ñu gis ni loolee yëpp dafa mel ni daal dañu ko daal di jëlaat lépp daal fay jaaree tàbb gétt mu mhm. mel ni daal ñun daal bés bés ñu mën bu dara xewee dinañ ci wax dinañ ci wax dinañ ci wax mais bu jàllee rek pare nañ ci moom moo tax lii di mel di wéy di am en ñu ngi koy daal di bu baax a baax tey nag war nañu daal jël ay matukaay yi jëmale ko mm-hmm. ci tali bi mm-hmm. ngi daal di rek a uh, a ñu wax uh, ci leneen rek uh, lu ñeel ki nga xam ne rek moom mooy directeur bu suma assistance gannaaw bi ñu ko tegee su contrôle judiciaire ni ki démb nag la daal di génn rek ngir wax ci li nga xam ne moom la procureur daal di woon àddu jëmale ko ci ki nga xam ne rek wax waxoon nañ ne nervi la muy du Fall te mu génnoon àdduna fële eh, ci manifestation yi amoon eh, jamono ji ñu génn moom nag yëkkati na ay kàddu daal di àddu que ne li nga xam ne moom la procureur wax yemoowul at li nga xam ne loolu moo am ndax mm-hmm. ndaxte moom mi ngi xamle ne moom ci boppam médecin la te dafa prêter serment amul droit di gis nit mu nekk ci ay jafe-jafe te du ko du ko du ko du ko assister ndax ñoom yàgg nañu sax di assister ñoo xam ne tey jii nii ay sénégalais lañ te xamuñ leen leen sans pour autant mu laale ci li nga xam ne moom mooy wàllum politique te bu nekkee euh, wàllum Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa hospitalisé woon ci fi nga xam ne moom mooy suma assistance moom tegu ko bët gisu ko ndax kii di Ousmane Sonko moom ci boppam am na ministère de la santé wam euh, personnel boo xam ne ñoom ci boppam ñoom ñooy jël en charge ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ñoom li leen fa indi woon mooy que ne dañ faa loué woon benn chambre boo xam ne dañ ko fa teg hospitalisé ko ngir rek ay médecin wam mun koo saytu mun koo koo faj donc ki nga xam ne moom mooy euh, Doudou Fall moom tamit ñu ko indee fële ca diwaanu euh, suma assistance nee nañ am nañ droit laaj ko euh, fan la bokk ndaxte ci ci gisuñu ko mu sol tenue te jàmmaarloo bi amoon entre manifestant yi la woon at ñi nga xam ne ñoom ñooy homme de looloo waral ñu laaj ko ci fan la bokk ndaxte dañoo bëggoon a xam ci fan la bokk te loolu obligation la képp koo xam ne ñëw na ci li nga xam ne moom mooy hôpitaux yi war nañ la laaj ci fan nga bokk ngir rek mën laa jël en charge nee na loolu moo waraloon question yooyu ñu koy posé waaye nag deful dara loo xam ne rek yemuwul at yoon ngir rek mu mun a faj ki nga xam ne moom mooy euh, du euh, Fall Mame Diarra man li may bëgg a laaj mooy laaj nit ki fan nga bokk ndax crime la ci réew mi

lam fa am mooy daal di rek euh, hospitalisé ci boobu lay clinique mu nekk mbir mi nga xamante ni daal ñu bëri ñu ngi koy daal di ñaaru ndax gisuma mm-hmm. lan moo war a tax tey ñu takk ko ay daan wala di ko topp ci li nga xamante ni peut-être nit ñëw na hôpitalam mu laaj ko fan nga bokk yàlla def li muy def mu génn àdduna mm-hmm. donc gisuma takkewu ci wala laalewu ci li nga xamante ni tey war na war na war na tax mm-hmm. muy subir lu mel nii en tout cas euh, Sénégal moo toll foofu tolluwaayu réew mi foofu la daal di rek toll donc ñu ngi koy daal rek massaw di ko wax euh, courage Salim voilà comme ni nga ko waxee rek Sénégal moo toll noonu ba rek ñuy dugg ci li nga xam ne moom mooy appel fast track Ousmane Sonko euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Mame Mbaye nar a am le 17 avril bi ñu jëm euh, sénégalais yi nag yëpp di posé wu la question lan moo waral ñu gi gaawantu li nga xam ne rek moom mooy procès en appel boobu ndax boo seetloo rek li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy citation à comparaître bi nga xam ne envoyé nañ ko kii di Ousmane Sonko dañ faa def euh, trois mois de prison alors que deux mois lañu lañu le juge bi euh, daal di joxe comme kii mu mel ni euh, dafa doon loo xam ne lapsus la te lapsus en général dañu naan bu amee rek day mel ni yow sa point de vue personnel moom nga jël utiliser ko donc loolu doon loo xam ne motif la mën a doon pour rek ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yu mën a repousser li nga xam ne rek moom mooy procès en appel boobu ñu jëm. en tout cas euh, le 17 avril la ñu daal di wax que ni procès bi dinañu am. Mhm. la ci am nag xëy na peut-être avocat yi ñoom dinañ ko daal di saytu ba xam fan la ñuy jaar mbir mi ba yàlla may leen ci nam mais lu mu ci mënti doon daal jàmm la ñu soxla ci suñu réew mi. ci mënti jot dinañ nañ xalaat askan wi. Mhm. ndax xam nañ ni ah, ah, ah, Sénégal fi mu fi mu toll nii. Mhm. am na yenn décision yow xamante ni moom soo ko jëlee da ngaa bëgg taalum réew rek. donc nañu indiwaat seen xel xam ne àdduna yàggul. te loo waaye def di nga ko daal di gis te wàcc moom à la coulée da nga koy daal di def donc seetaat leen décision yi ngeen jël rek ngir jàmmi réew mi. ñu jàll ci leneen sali liñ naan wàcc daanu naa moo ci gën a gaaw <laughs> mi ngi noonu dëgg la voilà euh, ñu ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy jàmmaarloo bi am euh, fële ca kayaax diggante nappkat yooyu di euh, nappkatu kayaax yi at waa Mboro at ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa géej ndax ki nga xam ne nag moom mooy le président Macky Sall daal dina ci àddu ndiki démb fële ca conseil de ministres moom nag mi ngi wax ki nga xam ne rek moom mooy ministre de la pêche at ki moom mooy ministre de l'intérieur ñu jël ay matuwaay rek ngir rek li nga xam ne moom moo xew euh, fële ca Kayar euh, du amat amati ndaxte moom nag mu ngi xamle rek que ne il faut que ñu daal di lijjante li nga xam ne moom mooy pêche artisanale bi nga xam ne am na foofu waaye itam code de la pêche bi aussi tamit ñu jéem ko euh, saytuwaat bu baax mi ngi wax aussi tamit ki nga xam ne moom mooy ministre de la pêche moom tamit ngir rek ñi nga xam ne am nañ ci ay lor-lor ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu wala aussi tamit am am nañ ci ay perte de matériel ñoom tamit ñu jéem leen a taxaw jéem a sensibiliser li nga xam ne rek moom mooy population boobu ngir li ni mel rek du fa amati. waaw comme ni mu ko waxee woon démb rek en tout cas lu ñu war a jug taxaw la. Mhm. Euh, euh, saafara lu ni mel la ndax nag wax dëgg fa yàlla lu ni mel dafa ñu duroog sax guerre ñoo xamante ni ñoo bokk lépp. Mhm. géej gi bu ñu demee bu ku ci nekk di te aaye sa morom. Mhm. wàllu wi màkk moom wàllu wee nga war a yem donc loolu war nañ cee taxaw xool xool fan la ñu ni ku ci nekk dafa am foofu moom foofu nga war a nappee. donc mu nekk mbir mi nga xamante ni jur na kenn nit ñàkk ci bakkanam ñu bëri ja ci seen i ay bagages ñi am ci ay gaañu gaañu euh, comme li ma waxoon sànq état wu Sénégal du muy ëpp loxo. Mhm. voilà ñu jeexalee rek li nga xam ne moom mooy euh, tàggat yaram ni ki démb nag ki nga xam ne rek euh, moom mooy euh, Sadio Mané nekk ci làmmiñu ñëpp képp ko rek ñëpp di ci yëkkati ay kàddu ci digganteem moom ak ki nga xam ne rek moom mooy Leroy sànne moom mi nga xam ne rek moom tamit sénégalais la à moitié ndaxte kii di papaam moom sénégalais la ndaxte ancien international sénégalais la donc moom nag li waraloon problème boobu. mooy que ne kii di euh, Sadio kii di euh, kii di Leroy euh, Sané moom dafa yëkkati ay kàddu yu ñàkkas jëmale ko ci ki nga xam ne rek moom mooy international sénégalais boobu di Sadio maane ba waral rek Sadio maane tamit yëkkati loxoom daal di koy dóor loolu rek moo waral nag coow loolu ba niki démb rek daal nañu indi benn benn daal dinañu am benn terrain d'entente ndaxte ñoom daal dinañu waxtaan ba trouver li nga xam ne rek moom mooy solution waaye itam képp kuy sénégalais rek daal na ñaawlu li ni mel ndaxte ñoom boo bu ñu waxee dañ naan kii di Sadio Mané xameewuñ ko lenn lu dul football xameewuñ ko lenn lu dul gëm boppam xam diineem xam moom mooy kan donc tey bu demee bay dugg ci situation wala bu demee bay dóor nit dafa fekk ne dafa sës looloo waral li maam jaara voilà mu comme ni ma ko waxee woon sànq rek bokk na ci suñu ponk yi muy Sadio Mané comme li ma wax sànq mu nekk nit ki nga xamante ni ñëpp euh, seddal nañu ko ni dal la ku dal la mm-hmm. ku respecté nit la. Mm-hmm. Euh, ku ku mën social la. ku ku mm-hmm. yërëm askanam la ku bëgg réewam léegi di Sénégal donc bu ko bu dara dalee si kawam. Eh, ñun dañu koy mënuñu def lu dul di ko ñaalu te boobaak léegi foo dugg ci réseaux sociaux yi da ngay gis sénégalais yi euh, solidarité bu ñu am ci jëm moom joojule naam le roi Sané nee nañ sénégalais la waaye nag moitié bi moo nekk sénégalais même moitié bi xaw ma lu mu doon en tout cas ñun moom euh, yàlla sax dafa wax que ni sa mbokk bu bu xeex même bu tooñee. Mhm. sotle ko ba pare après nga daal di koy indi ba ci moom nga yedd ko donc ñoom ñaar ñëpp ay euh, lañ. maam Diarra mu mel mhm. ni euh, jox nañu benn information de dernière minute boo xam ne rek ñu ngi xam ne kii di Sadio Mané club bi daal dina koy suspendre jusqu'à nouvel ordre. looy wax ni. loolu de lañ ñu jox comme information. Ah, lu doy waar. baax na yàlla baax na. yàlla baax na. cat la yàlla baax na. roi Sané yow xamal nga ni déclaré nga ñu guerre. ger bi dina saf saf. déedéet nel nel nel bi penn euh, dëkk bu. mën a ku ñu <laughs> wér laaj. am crédit vraiment yow da ñu xamul. mais yàlla baax na yàlla baax na Salim <laughs> ah, moom yàlla dina ko fay xol ak fu mu nekk comme li ñu koy wax rek day mhm. jeng maay du mës a daanu ndax xolam rafet na mhm. euh, te it nit ko baax la euh, euh, li nga xamante ni mbégte bi nga xamante ni indil nañu ko mooy naam mbégte li nga xamante ni mooy indil ñu lu ji ñeel coupe du coupe d'Afrique mhm. loole dañ bu ko ko yàlla fayee du du amul lu muy ragal ñu ñu xam na xam ni daal ñu ngi si ginnaawam ñu ngi koy mastaw di xam ni daal football moo noonu donc na di ko wax rek courage gaynde lépp dina baax incha allah incha allah mhm. lépp dina baax voilà lii lañ leen indiloon rek euh, comme li nga xam ne moom mooy xibaar ci bés bi euh, di remercier rek euh, équipe bi yëpp di remercier Mame Diarra particulièrement di remercier aussi tamit internautes yi nga xam ne rek à chaque fois ñoom ñoo ñuy may courage à ce que ñuy jàkkaarloo ak yéen di leen jukkil li nga xam ne rek moom mooy xibaar yi di leen jox dig daje rek ba ëllëg incha allah rabbi même heure. merci Sali ba suba incha allah jaajëf jaajëf Euh, bu ko defee rési dañuy daal di àndaat ak yéen dem yi benn euh, pose ñëwaat ci wéyal ni li nga xamante ni mooy seen émission seen kàddu askan bi dugg wax seen xalaat ci ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko léegi léegi lay doon.